wax luy mas yu wal wadiyu ak génne wadiyu wadiyu dana la wax mooy lan juróom yi lépp lu xas nekk ci nit ki mu génn ci xanam ak wér rek maanaam njàpp la yàqu na moo tax njàpp safaanal koor la njàpp lu génn bokkut koor lu dugg bokkut boo xasee jàpp kay jàppul rek bu dara bu dara jàppal bu dëgër bu dara génnati boo xasee woor nag moom fexeel ba bu dara duggati wal asbaabu sabab yi annaw mu mooy nelaw saqiilu yu diis nelaw ñeenti xaaj la nelaw yu gàtt te njàpp la yàqu na nelaw yu gudd te njàpp la yàqu na nelaw yu gudd te sopp nañ ci borom mu jàppaat nelaw yu gàtt te kooku moom dara waru ci nelaw yu diis nag boo ko bëggee xam mooy tey boo yore woon kurus wadd na la te yëguloo ko boo jëloon sa alise teg ko ci sa poos wala nga deg ko sa pegg mi ngi sone ñi lay woo te déggatoo ko su ko defee boo doon ab jaaykat ki dugg ak ki génn yëgatuloo ko su boobaa rek diis na nelaw nag ak xaalis ñoo xam kenn du ko nangoo xam koo gis ne ko waaye sëñ bi réew de fu mel nii wax dëgg yàlla yàlla jox na la teraanga macha allah mu ne xaw ma dara boo gisee nit tamit nga ne ko ah yow sëñ bi xaw nga fee nelaw nga fi di mu ne ah dama xaw nelaw rek moom kay nelawuma koo ko wax mu weddi ko waaye daal yii bu xasee am diis na. wal irmaawu xëm jàpp ba pare xëm daane la li nga fa def moo ñu xóorut moo tax jàpp la yàqu na wa sukkureeg mandi moo xam lu la wala lu dagan ndax boo xasee mandi rek takkatoo sam lu fa xew xamuñ ko moo tax yàqu na wal junoonu ak saddun jinne jàpp nga ba pare daanu ay jinne su boobaa la fa xew xamuñ ko xamuñ am na lu génnam déet njàpp la yàqu na demal jàppiwaat wal xublatu ak fóon bu nit ki xasee jàpp fóon rek njàpp la yàqu na moo xam ba muy foon jigéen gi jublu na ca bànneex wala jubluwut ca bànneex xam na ca bànneex maa xamut ko ca yàqu na ndax foon am te bànneex amut bëriwut ta lu bëriwut kenn du ci àtte foon yi nga xam ne daal mooy tax du yàq njàpp foon ca kojug xarmante ci muy yërëm ko fa feebar nekk ca hôpital ba nga ñëw seet si ko rek ndeysaan rek sa ronkañi commencé sotteeku nga foon ko ku nekk xam ne ne jubluwoo ca dara yàqu dara wala bi maanaa foon koo xam ne foon ak tàggatoo dem bay ñibbi bu mu tàggule war a dem tukki yow nga war fee des ngeen bokk fóonante nii su boobaa tamit fekk tàggatoo rek la jubluwoo ke dara ko dara newut ca waaye amaa fóon koo xam ne moom takkoo ko kooku moom ay yar yu saf war na ca waxuma la sa njàpp la yàq na njàpp ak ay yar war na ca walam sul marati laal jigéen day yàq njàpp laal nag ñeenti xaaj la boo laalee jublu ca bànneex ca bànneex yàqu na boo ko ca xamee te jubluwoo ko ca yàqu na soo ko ca jubloo te xamoo ko ca yàqu na li lay mën a musal daal mooy jubluwoo ko ca xamoo ko ca kañu laal timit safaan moom tamit mooy moo koog ñoo bokk moom ma laal bu ca xamee bànneex rek yàqu na bu ca jubloo bànneex tamit ca bañ koy laal moom tamit donte la xamu ko ca yàqu na waaye nag moom dañ koo laal rek jubluwut ca dara xamut ca dara kooku moom dara niwut ca moo tax mu ne walla walam sul marati laal jigéen in xasada ba sa jubloo la sata bànneex xataa bu doon laal góor ndax dafa am ñoo xam ne dañuy bànneexu ci góor aw wajadaha mbaa mu xam ko ca da yàq njàpp la wa masu zakkari laal sakara bi baatinil kafi ci biir ténk aw bi baatinil asaabiha wala ci i baaraam da yàq njàpp di ko tënkee rek xonq-xonq bi lépp lu xonq ci sa ci sa baara ci sa loxo bi di nga ko tàllale loo ko gis muy xonq bu laalee sa sàkkara directement dara digalewut ko ñépp dëppoo na njàpp la yàqu na moo xam la ko laal ci biir ténk yi la wala maanaam biiri baaraam yi la wala wàllu baaraam ya la ceet ya la wala digg ba la luy xonq daal ci sa loxo bi bu laalee ci sa xawra euh, euh, rek maanaam kanam ga rek yàqu na kon loolu mooy laal ko waaye nag mu fekk mu jokk ci yow waaye bu fekkoon tey xawraaw dafa dagg dali fële mu laal ko te fekk jokkuwut ci moom yàqatu njàpp la am na sax ñu ne su fekkee dafa laal xawraay jàmbur xam naa ku sàggan lañ koy def ak ku sàggan a koy def su boobaa tamit moom njàpp la yàquwut ndax jokkuwut ci moom al mu muttasili lañ wax na fekk mu jokk ci moom moo tax mu ne wa masu zakkari laal sàkkara bi baatinil kafi ci biir ténk aw bi baatinil asaabiha wala ci biir i baaraam bu xamee rek njàpp la yàqu na moom moom buñ ne laal xam nga ca bànneex xamoo ko ca yépp a ca am yàqu na jubluwuñ ca loolu laal ga moo ko yàq waaye bu amee lu ko digale la wala am lu ko digale sa silib la wala am lu ko digale sa yére bi nga sol la lu mu nekk lu oyof oyof bu ko xasee digale rek yàqatut ko waaye bu ko laalee direct rek moom yàqu na buy jigéen nag moom laal ca kaw du tax maanaam mu yàqu ko fokk mu jël baaraam dugal ca mooy tax mu yàqu wa man sàkk ku sikk sàkk fii hadasin ci toj wajaba war na àllee ci moom alwudu jàpp sikk sàkk ne toj le naam toj le wu ma demal jàppiwaat moo gën a wér faw mu ne a ah, illa an yakun rek mu nekk mu was wi sant ak i jax-jaxal kon de fala chey a déet daraal moo koy def nit nga jàpp ba pare mun a jàppoo nga jàpp ba pare amee njàpp mu ne toj le nga kon nag bul ko dimbalee jàppiwaat waaye bu waa xeexal ak moom rek de téye bakkan taxaw ne man kay jàpp naa wóor na ma ne maanaam maa ngeeg laab toj lewu ma comme da nga koo dëkkee rek loolu yàqatu ko waye jibu dana war xale ci mukallaf xaslu sàkkar yi raxas sàkkar ak kullihi léppam minal masi ci masi gi ñu la waxoon mas yu moom bu xasee génn borom war naa raxas sàkkara sa lépp xànd ak su raxasee lépp ta xéenewut yàqu na su xéenee te raxasul lépp yàqu na lépp lay raxas ànd ak yéene waaye nag wala yaxsilu du raxas un sa ñaari way yoore ya kook du ko raxas luy masiw mu ne wal masiw masiw huwa moom almaa u ndox la alxaariju may aji génn xend sëhwati fa bànneex suxraa bu ndaw bi tafakkurin ci xalaat mbiram jigéen moo koy génnee aw nasrin mbaa xool jigéen aw xayri yi mbaa yu dul yooyu man lu yooyu mooy mën naa nekk jonjoo kon nag mas yu bànneex bu ndaw a koy génne toog rek di xalaat mbiram jigéen ba yëg na sa tubay tooy na mas yu la demal nga raxas lépp doo sangu ji nag raxasal lépp ànd ak yéene bu la fekkoon nga jàpp njàpp la yàqu na demal nga raxas lépp te dem jàppiwaat fa mu nekk sa tubay ji tooy nga gis ko dañal ko wala nga dem dindi ko seet noo ko regalee solaat beneen tubay wala sax danga sàggan di xool ñuy fekk ci télé bi ñu sàggan di génnee seeni awra ngay xool di ca bànneexu ba yëg na sa tubay tooy na yooyu tamit mooy ba tey mas yu la demal nga raxas sàkkara sa lépp ànd ak yéene te dumbi te nga dindi sa tubay ja wala nga fexe ba dañal fa mu nekk wala sax moom dafa xame feebar dafa jonjoog jigéen rek am lu génn ci moom mas yoo ngoog kon xelaat mbiram jigéen bànneex bu ndaw moo koy génnee yii nag bu mu ci am rek daf koy raxas bu ko defee moo tax mu ne wala yaxsilu du raxas un say ne ñaari way yoore ya wal mas yu mas yu woo moom maa u ndox la xaariju mooy aji génn indi sawati fa bànneex suxraa bu ndaw bi ta fakkuriñ ci xalaat mbiram jigéen aw nafin wala xool aw xayri mbaa yu dut yooyu yii bu xasee am rek njàpp yàqu na